maaleykum maa ngi nuyu tey plateau koor di ziar ñëpp nag plateau koor gi nag bëgguma mu raw kenn kenn kenn ndax dafa am dafa am talent yu fi nekk yoo xamante ne nii ku ko seetaan ci gis sa bopp macha allah xeetu dàll yu naay si es nañ ñu ngi tijji dikkit bu bees en face ginaar yi boo ñëwee sóori puy fashion nga fay fekk soo ñëwee bi ma ne magasin bu njëkk ba fàllu sama rakk nga fay fekk fàllu puy fashion nga fay fekk di sëf samay clientèle yi dëgg yàlla ñu may jàppale dooleel ma lu ma jaay ñu teg ci loxo dal yi am classe pochette bi am classe yaa may dégg bijoux riche plaque yu original buñ ko takkee comme or dañuy jaay rafet te ñun tamit dañu am for boo xamante ne kuy xew muy marié muy ngénte dañ koy laaj da ngay ngénte mun na dañuy ngénte ñu def ko sàjj ko dàll yi am classe pochette yi am classe yu raar yoo xamante ne bu ko solee du gis kenn ku ko sol kuy ñëw tamit di jënd si dañ naan la da ngay xew wala xewoo bu fekkee xewoo ñu xolo la dal yu am classe yu stylé yoo xam ne boo ko solee di ci sant sa bopp ñun loolu la ñuy liggéey moo suñu clients yi tàmmuñu te macha allah lu ñu indi tamit ñoom ñu teg seen loxo di leen ñaanal ko aussi tamit yàlla defal leen jàmm defal ñu jàmm dàll yi bees yi wàcc na takkaay yi bees yi wàcc na pos yi di am classe yi wàcc na cerax yi nag yoo xamante ne moom ngay taajee ndogu rek daal ci teeru say gan ñëpp kontaan bus yu am classe yu ore yu raar ku ko bëgg da ngay seetu Feurepuy Fashion centre commercial Touba Mazeng baa yi boo ñëwee ci ginaar bi fit bu bees bi nga laajte Sorico Fashion beneen bi ci suuf mooy Modou Pouye ku bëgg lu rafet lu rafet rek na nga ñëw laaj Sorico Fashion 77 518 82 85 77 518 82 82 85 ku bëgg lu nice rek na ñëw laajte Sorico Fashion centre commercial Touba Masdeng wala ci mbeddu ginaar yi waaw maa ngi woon ak sama client yëpp di la wax na nag bagage yi ñëw nañ ku yéex na doo fekkee dara. dama bëgg ngeen ñëw ngeen préparer ñu def suñu xeetu baax baax ñëw ci saag yi ñëw ci dal yi ñëw ci cerax yi ñëw ci bus yi ñëw ci poche yi am classe yi xam ne cristal diamantel la xalé du ko laal ci mo du ko laal soo def fi ci rek mën a amee gaaw leen nga ndaw gaaw ñëw ma ngi nuyu nak sama client yi nekk Bordeaux nekk France Italie ah New York ñun ñëpp ma ngi leen wo di leen sant nak ñun fa su ne ma leen jaay bagage États-Unis Angleterre dubai Chine ñun ñëpp maa ngi leen woo Brescia Bergamo ñun ñëpp maa ngi leen woo chaque ngi dem di ñëw mënuma leen a fay nag surtout maa waa Bordeaux dañu maa bëgg sa fooma lu ñuy def macha allah maa leen ko def waa États-Unis noonu su ma limee juum waa Espagne noonu su ma limee juum parce que ñun ñëpp samay xarit lañ maa leen solal ñu gis seen bopp di ma boole seen i client ma leen di jaay GP bi nii rek lay def chaque jour maa ngi livré kontaan naa ci yéen di sant nag sama papa di sant sama yaay di sant sama nijaay maam koy di sant sama famille yëpp di sant nag sama jëkkër rafet mu allah ji baar seri soro maa ngi ko sant ni moo ma dooleel mun ma koo fay di ñaanal ñëpp nag sama yaay mampu aussi mi sama papa mi sama lépp maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal taxawaayam yàgg di ñaanal ñëpp di ñaanal kilifa diine ñëpp di may ñaan ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm su ma limee damay juum sant naa leen cat ba cat di la ñaanal nag